dama bëggoon ne sunu ndaje mi fii tey li ko wundu que marchands ambulants yi euh, ferrailleurs yi tout le secteur informel dañu dajante woon ak le président de la république Macky Sall au palais am na ñoo xam ne nii ci salle bi fekke woon nañ ko président de la république Macky Sall mu sant ma benn liggéey que naa ko defal fichier ñu recenser marchands tablier yi ambulants yi et tout le secteur informel jigéen ñi mag ndaw góor jigéen ba nit ñi mën a am accès ci financement yi ak logement sociaux yi wax naa léegi que logement sociaux yi nañ ci góorlu parce que loolu pour ñun lañ président Macky Sall ci xalaatam bu rafet mu ne marchand ambulant yéen kenn ku si nekk si nga dëkk yaa ngi fay location quarante mille ou 50 000 ou 60 000. L'osement social, c'est 12 millions. Si 12 millions, vous avez fait 50 000, 50 000, si bien durée, vous avez 20 ans. Nous sommes le président, du aussi Djadjefel. Si, si, hier, vous avez fait le Sénégalais avec Zenesbi. ñëpp gis nañ que ne président de la république Macky Sall réalisation yi mu fi def ñëpp teg nañ ci seen bët gis nañ fi terre bi gis nañ fi pooru Ndayane bi gis nañ fi aéroport yi gis nañ fi gis nañ fi BRT yi gis nañ fi hôpital yi université yu bees yi mag yi nga xam ne kuy dem di fay yi doo fay xale yi ndaw yi Nous avons pris prise en charge de fay vraiment Gatien président Macky Sall si li sénégalais sénégalais ak li Sénégal raison pour laquelle Nous nous engagement Et notre détermination def mouvement Macky 3 je pour une deuxième quinquennat ñi nga xam ne dañu bëgg a jaxase Sénégal ñi nga xam ne dañu bëgg a Sénégal ñi nga bëgg a xam ne dañu bëgg a torpiller dëkk bi pour seen ay intérêt personnel dootuñu ko nangu.